allez ñu dem ci l'observateur li mu xëyee tey ci alxames bi euh, ci xëtam mu njëkk ñu yër ko xool ko tuuti mi ngi noonu gis ngeen euh, Macky une fin chahutée ak manifestation yi amoon euh, contre moom jiitu réew mi ba mu demee fële ca États-Unis rawatina ca New York le camouflet de New York la l'alerte sur l'image de la démocratie maanaam ni muy xaw a xuree tuuti xar Sénégal ci wàllum démocratie Amadou Ba une visite à Tivaouane aux allures de campagne mi ngi ci page 3 4 5 ci tënk gis ngeen ak nataalu image ak euh, président Macky Sall fële ca New York ci wàllum politique mouvement gëm sa bopp euh, Bougane Gueye Dany euh, l'interview d'attaque moom nee na dafay santine dafa am ay manœuvre ngir fexe ba di leen jéem a noot ak lu ni mel mi ngi ci page 4 bu journal bi l'observateur ñëw ci Wakam ñaari étudiants étrangers yu doon sàkku benn malien ba noppi sànni ko ci mbedd bi muy lu doy waar et puis cinéma métamorphose des artistes pour être la peau du personnage bu ñu leen joxee benn rôle naka la ñuy soppeekoo ngir mëna dugg bu baax ci personnage bi gën koo mën a incarné ku ci mel ni Kader ji moom nee na ci ñeenti weer jóge na ci 74 kilos dem ci 90 kilos euh, Pod moom nee na coach sportif ak ay protéines moom mi ngi ciy indi ay leeral et puis mbir mu tiis mi ñuy waxtaanee fan yëpp Derklé euh, gaz bi tàkk ak identité ñaari ñi ci ñàkk seen bakkeen nga xam ne moo tax ba jamono ji ñu ngi naan euh, juróom-benn lañu mu ngi ci journal bi. arrêté sur instruction du procureur déféré puis relâché ñu indi ay kaddu wala bokk ay leeral mbirum Awa Baba Thiam euh, audio fuité message injurieux bi mu yónnee Sala Sow ak exploitation téléphone euh, ki nga xam ne moom moo koy euh, liggéeyal entretien avec l'ancien international sénégalais les conseils de Boubacar Sarr Locotte à Cissé et ses Lions mi ngi ci page 12 bu journal bi ñu jàll ci record vieux ak li mu xëyee tey jëlee ci alxames bi record tam wàllum tàggat yaram gis ngeen ko test grandeur nature pour euh, Iliman euh, mi ngi ak nataalam et puis euh, Lens neutralise Séville Nampalis le gros volume page la nekk El Hadj si Cissé moom mooy coach Stade de Mbour moom nee na l'objectif faire partie du Big Four de Ligue 1 ci wàllum basketball itamit record ñëw na ci tey jile muy direction technique nationale bi Raoul Toupane succède à Tafa Gueye ñu jeexaleeg wàllum làmb ak combat 8 octobre prochain à d Fass ak ñoom ñu ngi promettre l'enfer ku nekk daal yaa ngi tëkku sa morom ci euh, lamb boobu muy euh, record ak l'observateur ñaari journaux yi groupe Futur Média di édité ngeen mën koo jënd liir xibaar yi ñu leen euh, junjal léegi dañuy jàll ci météo bi ñu baral ko ak Oumy Samb